Lamine rénemi euh, maanaam remaniement buy amaan ministériel bu garaaw Lamine bi yoon di ci gis lu doy waar changement yi bu ñëwee bi yoon di nga gis ñu bëri ñuy wadd ñooñ buñ paree ci euh, maanaam euh, remaniement bi ba ba ministère yi commencé wadd dañ ci gis ñu bëri ñuy def opposition waay waay waay waay nañ bàyyi loolu nit kul la jàppale ba nga yem fa nga yem ba toll fi nga toll xañ na nga bàyyi ko si bi loolu baaxul dina gisaat ñu bëri ñu jóge koo ci pouvoir di daw ci opposition yaa ngi dégg Lamine ah Lamine. bisimila remaniement bi Macky Sall gontoo démb moom la yéenekaay yu bari xëyee tey source a nu amul jëwriñ ju fanaandoo ndombal tànkam démb ñoom ñépp la Macky Sall dàq bi ko juróomi weer kott desee ci bopp réew mi Sud Quotidien nañu dàq na ñépp bam des amadu Ba ndax moom mooy wéy di doxal fi ak ñu yegg ci élection présidentielle bi nu dëkmal mal kaay yu groupe Sud Communication bi nii la ñu yëgalee ni tas nanu gouvernement bi bay waaja a taxawal bu bees réew mi Quotidien mel ni ku naan taxawal nanu ko ba nuppi ndax boobaleeb gouvernement ña ca nara bokk ak ña narta bokk Macky Sall nas na noo ci lépp liste ba yéene kaay bi di réew mi quotidien ne sotti na Macky ko téye ci loxoom fësal doo nga ci des des gi Amadou Ba di des ci bopp gouvernement bi it la tribune yeggee nañu ko ñu mooy wéy di jiite seddoo gato bi fi yegg élection yi yegg si yéene kaay bi ne ñu ngi jëm nag ci gouvernement campagne électorale boobale gouvernement moo yitteel le quotidien mi ne Macky Sall daf caa nar a dooleel candidat bi di Amadou Ba l'observateur it noona la gisee niki bés bi le jour mi xaar équipe de combat présidentielle maanaam gouvernement boo xam ne élection présidentielle bi kott moo ko yitteel enquête moom ma ngay wéy di laaj ban gouvernement lañ nar a am yéene kaay bi ne li leer daal mooy ci njeextal ay bës bi danañu fësal listub gouvernement bu bees bi amadu Ba moom falaat nañu ko ci boppale boobale gouvernement te bii di ñëw enquête nee na ay coppite yu bare bari dana ci am bu dul ne sax lépp la ñuy soppi Vox Populi ne bu weesoo ay coppite ak dooleel gu Macky Sall dooleel Amadou Ba mbetteel yu baree bari itam dina am ci bileb gouvernement